salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre chaîne préférée Dakarnet kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñu topp Ouzin ngeen di àndal saa ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd gise ak gise ak nag euh, tout le temps dañuy waxtaane li nga xamante ni moom mooy actualité actualité boobu noonu sax tey moo tax ñu invité ki nga xamante ni mii mi ni toog sama wet duñu ko présenté ci réew mi à travers euh, engagement bi nga xamante ni daf koy faral di def jëmale ci peuple bi ak ay analyse yi nga xamante ni également daf koy koy def jëmale ci mbir yoo xamante ni dafay soxal askan bi muy Clédor Sène monsieur Clédor Sène ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi lay nuyu di nuyu ñuy seetaan Dakarnet yëpp di fas yéene am ak yéen jotaay hmm. euh, waxtaan bi dañ koy dañ koy ubbee ci. aviation bi ah li nga xamante ni euh, voilà Sénégal daloo na ko muy avion bu bees bi hmm. euh, remplacé bi fi nekkoon donc nan nga ko gisee déjà waaw li ma ko gisee mooy comme une suite mmh. logique. Mmh. Euh, ci nga xam ni ci dépense de prestige yi nga xam ni euh, moom la président Macky Sall di def yëpp. Mmh. parce que avant loolu jëndoon na fi benn Mercedes euh, Maybach. boo xam ni un milliard lay jàpp environ. mooy oto boobu tàkkoon ci yoonu. tàkkoon ci yoonu ngéeñeen bi laa ngéeñeen bi desee donc voilà donc loolu ay dépense de de prestige laa ko tuddee. Euh, parce que avion bi nag moo gën a incohérent parce que moom dafa amoon avion déjà. Hmm. Euh, dafa amoon avion déjà te euh, bu ngeen fàttalikoo Abdoulaye Wade jëndoon na fi avion occasion vingt milliards nit ñi di ko décrier. Hmm. naan loolu dafa hmm. cher dépense excessive la et cetera. ñooñu ko doon décrier tey ñoo nekk ci nguur gi. d'accord daal di jënd benn A320 néo muy avion bu bees. boo xam ni dañ ko réaménagé ci biir ñu def ko comme hôtel xaw ndax am ngeen image intérieure avion bi. Mhm. mais man j'ai les images euh, j'aurais dû prévoir ça. pour ñu mhm. xam naa du ñàkk suñu réalisateur dinañ ko. voilà image intérieure yi wane nañ ko mais c'est c'est un hôtel presque mhm. volant donc ci contexte de crise boo xam ne comme ni ko euh, président Bougane koy waxee mënoo dem à travers l'Europe di yelwaan pour ñu baal la sa bor. ba noppi ñi ngay dem di tàllal loxo nga am avion bu ñu amul ñoom di dépenser euh, environ soixante milliards ci benn euh, avion c'est vrai que président de la République du Sénégal dafa war am avion avion dañ koy entretenir dañ koy euh, reconditionner parce que essentielu avion mooy réacteurs yi moom mooy moteurs yi mm-hmm. réacteur bu bees cinq millions d'euros lay jar ba sept millions d'euros maximum réacteur donc maanaam avion bi bu amoon sax ay ay tuuti lu ci xaawoon a doy waa mhm. boo changer réacteurs yi doo àgg foofu parce que mais mais avion yi en fait am na ay experts yoo xamante ni euh, ñi ngi naan avion bi dañ ko dañ ko war dañ ko waroon changé bon jot na quoi bi ñu ko defee dafa jot parce que avion bi déjà dafa dafa bëri ay manquements et que tout le temps dañu koy réparer. xam nga ñeen di tuddee expert aussi mhm. euh, parfois dañuy réeral xam nga bi ñuy waaj a tabax euh, aéroport AIBD. Mhm. ay experts en aéronautique. Mhm. dañu ni woon fi ñu ko naroon a implanté. mënul mhm. nekk mënul nekk aéroport. Mhm. baaxul wóorul. normalul et cetera. remplirul benn norme te pourtant actuellement. Euh, mu ngi fonctionner bi c'est un hub. kon soo ma nee expert naa ko jël ak ay pincettes. mais man xam naa ne ci wàllu aviation. ay moteuru Airbus euh, yooyu lay jar ay cinq millions de dollars ak sept millions donc loolu. wute naag 102 millions de dollars yi nga xam ne moom ngay jëndee aéronef bu bees parce que ñuy nekk ci en période de crise ñuy ji génn ci euh, coronavirus un an boo xam ne économie bi dafa impacté ñu ngi ñuy économiser loo ñu ngi takk suñu biir lépp a sooxee donc ci contexte boobu yow mënoo prôné l' annulation de la dette ba noppi def ay dépenses de prestige ba noppi di ko nëbb euh, parce que communication bi tamit euh, foofu secret défense la la la porte-parole bi wax non secret défense loolu euh, du dëgg euh, parce que secret défense jëmul ci auto président wala avion président loolu du secret défense parc automobile ak parc aéronautique bu Sénégal kooku patrimoine Sénégal kooku ça n'a rien à voir avec la défense c'est pas du du du du du avion buy xeex du avion c'est pas un bombardier c'est un avion civil donc foofu bu ñuy wax secret défense baatu secret mooy baatu nëbbutu rek buñ ko teg mukk ci dépense parce que nit ñi fii xam nañu est-ce que xam nga am na ay doomu Sénégal yu liggéey Airbus am na ay doomu Sénégal yoo xam ne ison des ingénieurs en aéronautique hmm. la ñuy xam li moteur di jar man dama ci am xarit boo xam ne xam naa ni réacteur euh, Airbus c'est environ cinq millions à sept millions d'euros boo laajee ay sociétés yu mel ni Safran ak yooyu ñoom dañuy defar ay ay ay ay pièces u avion boo leen passé commande prix yooyu lañ lay jox donc monde bi léegi dara nëbbootu fi bu weesoo loolu internet boo duggee boo bëggee xam prix Airbus cent 320 neo boo ko tàppee ñu génneel la ko kon ñoom lu ñuy nëbb secret défense ils sont en retard par rapport ak jamono ni ñuy doxee fi mu nekk nii te loolu c'est de la malhonnêteté ba noppi xeeb askan bi la parce que foog nañ ni ñun mënuñu gëstu loolu ba xam ko ba am ci lu man nag euh, débat boobu dem ci sawarul sax parce que euh, dafa enflé moom la ñu jël fan yi yëpp moo tax sawaruma ci wax parce que xam naa ni li ma ci war a wax yëpp nit ñi wax nañ ko déjà. mais est-ce que est-ce que nekkul tamit parce que am na ñuy wax naan en fait euh, dañu dañu jël débat boobu teg ko pour remplacer débat wu homosexualité bi nga xamante ni sénégalais ñu ngi ko doon ñaxtu te même pas trois jours ñu xëy suba ñu wax wax avion est-ce que nekkul ni dañu jël yóbbu ñu foofu noonu am na ñu xalaatee noonu. non non ñooñu ñooñu dañu dañu xalaat rek mais euh, yaakaaruma loolu parce que ñoom bu doon seen sago. Hmm. débat wu avion bi soulever ñoom dañ koy nëb bu ñu demee bay invoqué secret défense mooy bëgguñu luñ ci wax. ñu ñu ci wax donc euh, lu lu lu accès ci opinion bi la lu ñu mënatul nëbb la mais jëlewuñ ko comme parfum pour pour pour nëbb affaire homosexualité. Mhm. d' accord alors bu ñu bu ñu gënee avancer un peu. gis nañ manifestation yi nga xamante ni euh, euh, ñi nga xamante ni ay mouvement yu bari ñoom ñoo lëkkaloo daal di koy taxawal. Mhm. ngir xeex li nga xamante ni moom mbiru ay góor jigéen ak ay lesbiennes ak yooyu. Mhm. naka nga ko gisee. waaw manifestation boobu. Mm-hmm. dafa sóoratul. Mm-hmm. tournée yi nga xam ne. Euh, mm-hmm. ànd sàmm jikko yi. te mu ëmb kuréel yu bëri. defoon na ko ci wetu chef religieux yi kilifa diine yi. ci wetu kilifa aada yi. ci wetu député yi. ci wetu leader d'opinion yi. Euh, sillonné Sénégal wërngal këpp. pour tegal leen pexe yi nga xam ni.

Euh, euh, dalil yi ba ñu xam ne lii lu leer la lii projet la boo xam ne lu ñuy dérouler la te ci lu dul caaxaan teg ko ci suñu ay charte réew teg ko ci suñu ay documents administratifs mel ni ay permis de conduire ay code de la presse euh, teg ko ci ay lois teg ko même ci ay ministères yoo xam ne day inclure la dimension genre teg ko ci programme mu jàngale sexualité à l'école les les élèves de neuf et douze ans may gërëm au passage taxawaayu dàmbooj mi nga xam ne moo ci njëkk alerte porté combat bi porté combat bi ba UNESCO dellu ci gannaaw UNESCO kuréelu waa bitim réew la euh, dellu gannaaw ci li ñu bëggoon dugal jàngale mbirum sëy ci tout tànk yi nga xam ne 9 ans bu 12 ans la ñu amoon donc loolu yëpp benn ensemble projet la boo xam ne ñoom waa bitim réew ñoo ko yor pour wañ loxo Sénégal te comme Sénégal nag ndimbalu bitim réew lay lay dundee euh, da kay jafe mu ñàkk tënku seen digal loolu moo tax ñun ñu jóg pour yëkkati askan bi yëkkati leader yi leader yi ñi ci jiitu mooy kilifa diine yi pour ñu ànd ak ñun ci ñaawlu mbirum góor jigéen ba noppi ñu xaatim loi boo xam ne day teg daan képp ku ñu jàpp ci mbirum góor jigéen ak gay ak euh, LGBT daal day naqaree faram mm. donc donc meeting bi dafa dafa sóoratul loolu yépp maanaam bi gannaaw bi ñu defee tournée boobu yëpp dañ ko jeexalee meeting fii Dakar ak ci gox-goxaan yëpp pour euh, fësal suñu kàddu fësal ci kanamu tubaab yi ni ñun lii ànduñu ci au contraire dañuy xeex sax pour ñu vote loi boo xam ne dañ ciy tegaate daan te loi boobu assemblée nationale lañ koy voter donc député yu bëri euh, pare nañu pour porter loi boobu Euh, dem nañu ci ay député aussi donc léegi la prochaine étape. moo ñu est-ce que bi ñoom euh, validé nañ euh, projet de loi boobu. est-ce que am na ñu si ñu si ñu si bokk. en tout cas ñëpp dégg nañu mbiri si la. nga xam ni ci majorité bi la bokkoon. Mm-hmm. moo njëkk a loi il des années pour ñu criminaliser mbirum góor jigéen mm-hmm. kon loolu dalay won ni rek loolu problème bi jéggi na ay clivage parti politique. jéggi na ay clivage yu tarixa jéggi na sax ay clivage yu diine parce que euh, diine chrétienne ak diine euh, jullit amul kenn ku nangu nangu loolu mhm. donc euh, te keroog ci daje bi mhm. quand même lu nit ñi seetuwul ay député nga foo woon ay Aïda Mbodj député la mhm. Ousmane Sonko député la Mamadou Lamine Diallo mu nga foo woon député la kii d'autre ràññe woon naa fa daal ay député yu bëri au moins cinq députés yu fa yu fa nekkoon donc euh, ñooñu ñoo ci des léegi loi bi projet de loi bi la ñu war a dugal assemblée nationale proposition de loi bi pour ñu voté ko mu nekk loi boo xam ne day criminaliser lépp luy mbirum góor jigéen ci Sénégal comme ni ñu ko defee ci mbirum viol parce que ku siif jigéen euh, ñu teg la daan dix ba vingt ans mais góor a góor bu ñuy sëy def naa loolu moo gën a ñaaw surtout que code pénal prévoir na ñu sanctionner euh, de de peine ay li ñu tuddee acte contre nature. acte contre nature. Mm-hmm. dara gënul nekk acte contre nature que góor a góor buy sëy wala jigéen ak jigéen buy sëy wala nit ak ay malo yu sëy. Mm-hmm. yooyu demee mais mm, doguma la mais si biir si biir déclara euh, déclaration euh, yi nga xamante ni kilifa yi ñu ngi ko doon def. alors dañu dañu gis ne oustaz Alioune Sall. Mm-hmm. dafa def da ngay gis bu mu jëlee parole. moom dafa wax ni ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo daje foofu et que d'ailleurs yaa ngi fa nañu tànn kenn mu jëmmal li nga xamante ni moom la ñuy xeex. noo déggee noonu yow ko déggee. waaw parce que déjà kuréel yi ñoom aar euh, sàmm jikko yi am nañ ordinateur donc hmm. nan nga déggee wax moom noonu. foofu euh, man sur le plan politique laa ko hmm. déggee. Hmm. c'est-à-dire euh, homme politique yi fa nekkoon bëriwuñu. man li ma déggee waxam mooy war nañu am un homme politique. bu pare porter combat bi nga xam ni moo ñu dajale woon bés boobu ñun ñëpp. parce que pour une fois ñu gis sénégalais yi. Mhm. dajaloo ci benn cause boo xam ni du politique. donc c' est bon que nit ku am gëdd ci réew mi mhm. euh, mën a porter euh, lu mel noonu donc euh, mbooloo mi tamit feelu nañ ko ci laajam boobu. voilà léegi Ousmane Sonko bi bi mbooloo mi réclamé yow na nga koy valider wala. en tout cas moom leader politique la boo xam ni kenn contesté tul ni. moo gën a fës. ci opposition bi ci jamono ñu toll nii te jaar gi mu jaar foofu am na lu mu ci wane te boo xoolee image nekk en arrière plan ay ndaw rek ñoo fa nekk. Mhm. te ndaw yi ñooy Sonko. donc ñoom ñoo doon scandé euh, turam ñoom ñoo feelu euh, Oustaz Aliou Sall ni ko li ngay wut kay mu ngi nii Sonko la kooku. loolu lu ñuy constaté la du sax sama raisonnement sama analyse wala sama sama sama déduction. Mm-hmm. mais lu ma lu ma lu ma lu ma jàngat la rek lu ñëpp gisandoo la lu ñëpp déggandoo la. mais ñu jox ko ñu jox ko jàpp ngeen du logique la. non tolluwuñu foofu sa à dire oustaz Aliou Sall dafa wax xalaatam. xalaatam xalaatam rek la wax. Mm-hmm. Euh, donc li ñu constaté rek mooy bi mu waxee xalaatam askan bi feelu na ko mm-hmm. mais Sénégal euh, problème bi fi nekk gën na yaatu. loolu problème mu. Euh, LGBT bi nga xam ni lu am am solo la mais Sénégal ba bëri na ay problèmes yu ñu war a porter donc doo ci seppi benn rek donc euh, foog nga am benn vision d'ensemble quand même mais xam nga ku nekk ak li la ñor boo nekkee nitu diine da ngay attaché wu ci ay valeur ci ay jikko moo tax ensemble jikko yi boo xoolee ñu ci ëpp bëri na ci ay ay nitu diine ay imam ay président d'association islamique ay ay njiitu tarixa wala ay taalibe yoo xam ne yu dogu dogu dogu wala ay ndaw yoo xam ni seen diine ak seen ay valeur daf leen ñor donc loolu nag dafa commencer inquiéter quelque part moo tax ñuy constater des échos euh, même en dehors du Sénégal mm-hmm. yoo xam ni mbir mi daf leen xaaw a euh, jaaxal tuuti Mm. alors ci ci écho yooyu la ñuy la ñuy enchaîner ah. donc am na benn association boo xamante ni ñoom ay wàllu ngóor jigéen la ñuy dund fële ca France. Mm-hmm. ñoom dañoo lim seen joxe seen liste tudd ci sénégalais yu bari eh, ki ci gën a fës di eh, kilifa diine eh, Serigne Babacar Sy Mansour. Mm-hmm. boole ko si Dame Mbodj boole la si yow mii. Mm-hmm. boole si sax ba boole si Assane Diouf. mais ba pare lu si gën a doy dañu bàyyi Karim Xrum Xax bi nga xamante ni moom moo téewoon drapeau bi daal di koy taal te image boobu mi ngi circulé fépp ci àddina bi. ñu bind seen liste jéggi ko déjà nag nga gisee liste bi déjà nit ñi bu ñu dugg France. ñoom dañu foog ni France lu lu extraordinaire la xëy na euh, parce que man dama jàpp ni ñoom. Mm-hmm. ñoo ñu gën a soxla. Mm-hmm. Euh, parce que France rek nekkul réew mu nekk bitim réew. Euh, donc àddina wërngal këpp yépp mm-hmm. fu nekk nit mën na fa am terangam. mais France dafa am lu ko lii ak Sénégal ci lu yàgg ci histoire donc bu fekkee ni benn kuréelu ay góor jigéen la ñun Sénégal ñun ñun mënuñu respecter góor góor jigéen mënuñu respecter kuréel góor jigéen mënuñu ko jox benn cër wala benn gëdd mais liñ ci mën rek mooy jàngat jàngat bi mooy <laughs> am na ñu metti ci ñoom ba ñu jàpp ni dañu war a sàkku ci seen nguur ñu am ñu ñu tere. ñu dugg seen réew moom ñuy wax France loolu day mandargaal rek ni mbir mi metti na leen li ñu ni déet déet déet parce que ñun waxuñu ni Sénégal pareegul comme ni ko président Macky Sall waxee ñun dañu ni Sénégal du mës a pare du mës a nangu te lii il faut que yoon di ci tegaate daan loolu nag menace la pour seen ay projet pour seen ay avancé waxoon naa la euh, UNESCO li mu jéemoon ci éducation ba daam mbóoj ak ay ñooñam amoon ci taxawaay bu ñu rafetlu wax naa la waxuma la sax mais franc-maçon yi nga xam ne jéem nañ fi am percé aussi toujours euh, collectif euh, non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité bi nga xam ne moo mujj versé wu ci ànd sàmm jikko yi nga xam ne neewoon naa dafa regroupé ay kuréel yu bëri donc Claire Vision bi mu bokk euh, ñoom dàmb ñoom ñëpp ci lañ bokk dafa yaatu donc ñooñu xeex nañ fi franc-maçon yi Euh, franc-maçon yi ñoom ñoo njëkk a bind benn lettre di menacer organisateur yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo contrôle rencontre bi fi franc yi waroon a def à Dakar Méridien Méridien voilà ba ñu mujj ko fomm mhm. ñoom dañu bind benn lettre bu tàng euh, di menacer organisateurs yi donc loolu la góor jigéen yi defaat parce que góor jigéen ak euh, ak franc-maçonnerie c'est de faces d'une même pièce Euh, mburu foofu ko fan boo ci wëlbati rek muy moroomam ñaar yooyu ñooy ànd parce que ay jaamu seytaan lañu moo tax boo xoolee kuréel bi tax woon keroog euh, diine def cee fës parce que isbu chimal la ñi nga xam ne seytaane la ñu àndal ak isbullah ñi nga xam ne euh, seen diine lañu ñu jiital ay valeur lañu valeur ak contre valeur la mm. donc ñoom seen seen seen seen démarche boobu mm. day traduire rek seen naqar ci mobilisation bi ñu mobiliser à travers tout le Sénégal ni lii du fi am te ñoom xam nañ ni ay député dañ ko porter assemblée nationale parce que bu nekkee loi day nekk lu sérieux mm. bu nekkoon meeting bu ñuy wax nii rek ça passe mais mm. projet de loi ci lañ jëm mm. ñoom xam nañu loolu parce que kilifa diine yi signé nañu pétition bi ay député pare nañu pour porter ko te député bu ko nar a contre sax ñemewu ko ñemewu ko fësal assemblée nationale dañuy criminaliser góor jigéen ñun dañ koy teg ci table yow sañoo voté contre même boo nekkee contre même boo àndee góor jigéen ñi ñemewoo ko fësal donc day jàll probablement parce que askan bi dina imposer boppam parce que nguur gi non seulement dañ ko mettre devant ses responsabilités comme ni ko Ababacar Mbow waxee mais également assemblée nationale dañ ko mettre devant ses responsabilités parce que on attend le vote d'une proposition de loi bi nga xam ni dafay criminaliser mbirum LGBT donc ay kuréelu góor jigéen sàkku ci seen gouvernement ñu tere ay nit euh, ñu dugg ñu dugg France loolu lu lu ñàkk fulla la mais jàngat bi nga koy jàngatee rek mooy lu bi franc yi ak góor jigéen yi nga xam ne benn lañu ñoom metti na leen euh, posture bi peuple Sénégal am ci défendre ay valeurs yi nga xam ne ñoom ay ay con seen ay contre valeur la ñu bëgg a jàppeeloo ay valeurs ñoom dëkk boo xam ne euh, polygamie am ñaari soxna dañ ko fay tere mm. loolu fii daf fi dagan ñaari soxna da seen loi da koo tere donc ñoom sañ nañoo tere lu dëppoowul ak seeni valeur seen dëkk mais yaa xayta ñun tamit war nañu sañ a tere góor ak góor di sëy fii suñu dëkk loolu daganul ci suñu diine daganul ci suñu aada daganul ci suñu cosaan daganul ci dara kon ñun état indépendant lañu France ilifatutuñu donc suñu ay loi ñun ñoo koy tëgg ci nu mu dëppoog suñu dundin ak suñu suñuy valeur ak suñuy gëm-gëm kon loolu duñ ci tàggu duñ ci tàggu duñ ci tàggu France. mais est-ce que dina euh, doguma la mais est-ce que dina yomb parce que olof dafay wax naan ku lay abal ku la abal yi gët moo lay wax fi ngay xool bu deekee dette bi mi ngi gën di yokk te ñoom si boppam banque mondiale ak FMI ak ñoom ñoo ñuy jox xaalis presque pour ñuy finance su yenn projet yu mag yi ñoom ñi laqatu si seen ginnaaw nee nañ ñun nañu daganal góor jigéen est-ce que loolu jàpp nga ni ak yaakaar nga ni Macky Sall bii. dina am taxawaay bu taxawaayu projet de loi boobu maanaam mu mu nangu sax nit ñi dem ba valider ko wala ñu koy voter assemblée nationale bu ñu ca eggee. moom da nee na mhm. Sénégal pareegul pareegul ñu la wax mais ñun dañu ni encore une fois mhm. Sénégal du ma a pale pare mhm. pour tolérer affaire góor jigéen parce que sama tontu bi sax balaa may xuus ci li ma mujjee laaj. dama koy mottali parce que yaa ma doon wax euh, Abdou moo lakk drapeau bi pourquoi ñu mm. tudd ko ci mm. tudd ci nii ak ñii ak ñii li ñuy ñaawlu bokk na ci mm. yëpp gi ñuy yëpp suñu kilifa diine yi ba di leen lim ci ñoo xam ne waruñoo dugg waruñoo dugg France ñoom dañuy sàkku rek nag ci seen ministère ah, mais ñoom euh, euh, def naa seen ministère mënu leen a topp ci loolu parce que ku mel ni xalif général di Tijaan passeport diplomatique la kooku ay association góor mun ñu ko tere voyager dans le monde kooku état ak état lay waxal kooku beneen dayoo la am donc il faut ñoom ñu jox suñu ay nit ñi nga xam ne ñun ñoom la ñu gëm seen i gëdd loolu nag loolu ñun ñoo ko war a fekk ñun ñoo ko war a régler euh, xalif généralu euh, euh, Thiénaba boole nañ ko ci liste bi ay imam boole nañ ci imam Bamar Ndiaye imam Moustapha Gueye et cetera boole nañu ci list bi bi nga xam ne nit ñi duñu duñu dugg France France lan moo fa nekk alors léegi lan moo tax ñu tudd ci Clédor Dame Mbodj euh, te tudduñu ci Karim tudd ci Assane Diouf mi nga xam ne mhm. man gisuma ko woon sax ci mbooloo mi xëy na mu nga fa woon mais jour boobu gisuma ko mhm. man de jëluma fa parole mhm. te dama amoon sax dog-dog parce que balaa daje bi di jeex man dama sax yeweeku woon mais terewul sama tur nekk ci Euh, donc incohérence moo am. ci seen liste boobu. dañu dañu ciblé daal. parce que tey jii Abdou Karim bi ngay wax effectivement moo yëkkati drapeau góor jigéen yi lakk ko tenir discours bu radical bu leer nañ ci dañu war a taxawu suñu diine. dañu war a taxawal suñu diine. dañu war a taxawu suñu diine. war a taxawal suñu diine. loolu mooy discours Abdou Karim Gueye ba jox exemple ay jullit yoo xam ne. seen pas-pas dong lañ leen téye ci kaso yi jàppee leen ay islamiste ki terroriste comme ni ñu defoon euh, imam euh, Alioune Badara Ndao donc plaider sax pour ñoom kon kooku bu fekkoon ni ñoom dañoo am naxar ci ñi nga xam ne dañuy rassembler wu contre euh, l'homosexualité c'est pas Clédor c'est pas Assane Diouf léegi nag man loolu bett na ma mais loolu lépp dañ ci indi jàngat parce que dafa mel ni dafa am ay nit Sénégal yu commencé di déranger même lu seen yoon nekkul sax dañ ci dugal seen tur yaa ngi fàttaliku sama arrestation bu mujj gii ma Sagna wax turam nekkul woon ci audio ci dara mhm. xam nga man tudd naa ab Assane sax teguma ci sax Diouf mais Guy kenn tudd ko fenn mhm. ñu jël yóbbu jël Assane yóbbu jël Clédor yóbbu alors tey bu manifestation amee ñu tudd lu bëri ñoo xam ne ay membre coalition citoyenne le peuple la. Cheikh Omar Diagne ci la bokk. Mhm. le peuple. Clédor Sène. Damboj le peuple. Damboj le peuple. Abdou le peuple. Assane Diouf le peuple. donc ñun les membres la coalition citoyenne le peuple euh, dañ ci am une bonne part ci ñu ñu cité te te te te gënuñu fës. Mhm. ci xeex mbirum góor jigéen. Mhm. pour Ababacar Mboup la comprendre parce que moom jàmbaar la moo jël son bâton de pèlerin kon moom sax la jiital sax ñoom ci liste bi loolu c'est c'est logique mm-hmm. mais pourquoi xalif général de Tidiane mm-hmm. pourquoi xalif Thiénaba mm-hmm. pourquoi suñu ay imam suñu référence ñu leen di menacer donc donc loolu euh, euh, ñoom ëmbuñu suñu sànqal de kon ñoom amul lu ñu mën ci ñun kon loolu euh, euh, dama koy dama dama ci am euh, jàngatu mbégte parce que day wane ni ñun yoon bi ñu nekk yoon bu baax la parce que am na ñu muy déranger ba bitim réew ba ñuy sàkku ci seen gouvernement ñu ñu def ay daan ci ñun man nag dem France terewu ma nelaw wax dëgg yàlla ñun Sénégal moo ñu ñor mm-hmm. donc li fi ne mm-hmm. lañu bëgg a soppi te fii lañ koy lijjantee du du ay France mhm. donc euh, te xam nañ ni ñun amuñu complexe tubaab mhm. jeunesse bi amul complexe tubaab parce que dañu bëgg foqati suñu souveraineté suñu moomeel euh, daal di gérer suñu réew suñu bopp ci lu wuuteeg euh, ñu ñuy ñu ñuy abal bët pour ñu xool fi ñu jëm mooy comme li ma posé mhm. question ndax ñoom ñoo ñuy financé yooyu tout ça est-ce que war nañu mën a bañ seeni i peuple bi nekkul ci seen ndigal nguur yi ñoo nekk ci seen ndigal donc ñun askan wi ñoo gën a indépendant gouvernement bi moo tax genre rassemblement bu mel noonu luy dimbali sax gouvernement bi la parce que bu fekkee ni ci intérieurement président Macky Sall euh, euh, buggul affaire góor jigéen ñi nekk fi wala buggul réeroo ak askanam. mais mais doguma la ah doguma la mais dafa mel ni li daloon li la daloon ah si ñu interview mujj bi ñu defoon ci l' observateur dafa mel ne moom moo dal Khalifa Sall. mooy que ni Khalifa Sall nee na l'observateur moom moo ko sosal bindal ko loolu ñi ñu koy wax ci eh, ci xibaar ci émission bi la ñu ñu jox xibaar moom que ni xalifa sàll nee na euh, l'observateur moo titré loolu bind lu ko neex mais moom waxul loolu te musul wax loolu ndax ñu gisee virement boobu noonu. waaw presse bi moom la wala Khalifa Sall bu fekkee ni luñ ko wax loola. luñ ko wax loola. dafa war a leeral. Hmm. moo tax man ma ni wax bu mel noonu. Hmm. bett na ma. Hmm. kon est duñu xaar. ba mu gën a leer ñu doog a analyser parce que mm-hmm. bu dee loolu la wax moom uh-huh. bu dee loolu la wax mm-hmm. lu may bett la mm-hmm. parce que moom homme politique la euh, dafa war a positionné wu euh, parce que man mu ñàkk solo mii sax euh, ba ñu demee 2019 dama bi ma demee xool carte bi suñu waa Claire Vision dañu ñun waruñu nët dañu war a mandargaal suñu pété ñu dem dugg ci benn coalition jàppale ko président donc ñu ngi jëm ci ay élections euh, municipales ak législatives mm-hmm. dañu am fu ñu ci péete ci wàllu coalition citoyenne foo leen féete si coalition citoyenne le peuple mais ci opposition bi la ñuy féete parce que ay élections kon daal nañ jàpp ni coalition le peuple dafay jàppal tànk Ousmane Sonko ci élection locale yii di ñëw wax ñu jàppal tànk Ousmane Sonko. non mooy jàppal tànk ci wolof moom mooy jàppale daal déedéet opposition bi laa wax. opposition bi weesu na Pastef. Mm, euh, ñun encore une fois duñu Euh, xam nga maa ngi doon jëm. Mhm. ci défendre. Euh, euh, candidature Barthélemy Diaz yaa yaa ma dagg parce que maa ngi doon maa ngi doon maa ngi doon ñëw. Mhm. parce que je comprendrais pas. Mhm. que mu manqué soutenir. Barthélemy Diaz. mais li ma doon wax te nga te nga féetale ko Pastef mooy. élection locale. élection wu dajaloo la. bul fàtte ni man dama bokk tamit ci benn front bu ñuy wax front de résistance nationale boo xam ne euh, Pastef mu nga fa mais yeneen parti aussi ñu nga fa parti yu bëri ñu nga fa ak ay mouvement citoyen ñu nga fa li ñu décidé ñun mooy ak li ñu gis mooy ñun ñëpp waa front bi waa m te m 2 ñu bëri ci front bi lañ nekk Pastef ci la nekk parce que ça fait ça fait copie mm. ak ñëpp ñi nga xam ne ànduñoo ko régime bi maanaam les mouvements citoyens donc la coalition citoyenne le peuple dañu war a def benn say koo xam ne euh, par exemple bu ñu jàppee ni Barth moo gën Dakar ñëpp jàppale ko mm-hmm. bu ñu jàppee ni Sonko moo gën Ziguinchor ñëpp jàppale ko foofu bu ñu jàppee ni keneen moo gën beneen gox ñëpp jàppale ko nga xam ne daf ñuy leer ni comme élection bi raw gàddu la mm-hmm. opposition bi dina jël raw gàddu bi mm-hmm. parce que benn poste rek moo ciy maire mais maire bi day am benn assemblée bu ñu tuddee conseil municipal donc ci liste bi dafay am ay conseillers ñoo xam ne dañu dañu mën a dugg ci liste bi gannaaw maire ba ñuy nommé ñi des ci opposition bi te boole woon seen doole ñoom ñëpp dinañ leen dëxañ ci liste bi nga xam ne maire bi buy voté budget dañuy toog buy joxe suuf commission domaniale dañuy toog buy def ay projet yooyu dañuy toog donc loolu mooy mooy projet bi